bismillaahi rahmaani rahiim barkab cheikh ahmadul xadim yaa xayra munsilin waqaa bi asbala wa xayra munsilin xabaa bi basmala salli bi tasliimin ala man faaqa fi xalqiqi wa xulqiqi ittifaaqa سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي سحابة وآله ومطر السحابة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi sant yàlla bu wér di julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam di gërëmaat bu baax cheikh ahmadul xadim noo ngi ñaanal bu baax a baax cheikh sidi al muxtaar mbakke sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba naal yi mu naalal borom tuba mu am ci lu kawe njortam te ànd koog taalibe yëpp barke xaside yi sëñ Tuubaa noo ngi ñaanal bu baax Cheikh Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïb jëwriñu xaside yi di ñaan liggéey bi muy liggéeyal borom tuba yàlla na ci am lu kawe njortam te ànd koog mboolem gi yëpp barke Xaadimal Mustafa Mbacke ku dégg sunu kàddu yi nag. xam ni bis bi nga xamante nii moom la ñuy màggal xaside yi Serigne Touba Mbacke yi fii ci Paris egg si waat na kañ la le 3 février 2018 incha allah fan la 15 15 rue Louison Bobé Aulnay-sous-Bois muy saal bañ ko daan faral di defee ci juróomeelu édition bi ñu toll nii te naka jekk fa lañ ko daan faral di defee at mu jot kon ñoo ngi ci soñ suñu bopp di ci soññ mbokki taalibe yépp di ci soññ mbooleem ku bëgg yàlla mbooleem kuy dund xasida ak alxuraan ñoo ngi lay soññ ci bis boobu noonu bis boobu nag ni muy tëddee mooy dañuy xëy di jàng alxuraan di jàng xasaayit di kuréel xasaayit di duruus xasaayit di rajas xasaayit di waxtaane xasaayit ba fajar ñu jox ko borom Tuubaa addiya yàlla nañu ko nangul te bu nu ko nangulee itam yàlla na ko sotti Cheikh Sidil Muxtaar mu yàgg fi lool te ànd ak wér te ànd ko jëriñam ji di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp mbooleem ñi nga xamante ni nag ñoo nekk bitim réew ba Sénégal ba feneen fu mu mën a doon ñoo ngi la koy fàttali bu wér a wér a wér te di xam ni képp koo xam yaa ngi jóge bitim réew du ñëw salle bi nga xamante moom lañ koy defee aéroport bi ko gën a jege ci dëkk bi mu ngi tudd aéroport Charles de Gaulle ñu ngi ñaan ci barke Serigne bi képp koo xamante ne am nga ak jàppandi. ngir wàcc aéroport Charles de Gaulle ñoo ngi ñaan nga wàcc fa ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ci jàppandee ci yow bu fekkee ne foofu day xat ci yow it am na aéroport beneen boo xamante ne moom la ñu wax aéroport Orly ku fa wàcc itam danañ la fa jël si incha allah rabbi ak ñi nga xamante ne dañuy jël train gaar bu mu mën a doon aéroport bu mu mën a doon euh, arrêt bu mu mën a doon bu soobee Cheikhul Khadim Mbacke bu nu boo yëgloo danañ la jël si fañ la war a jël see indi la ci saal bi ngir jëmbi si Sëriñ Tuubaa Mbacke jublu gi nag ñëpp xam nañ bu wër màggalu xasi bi fii ci Paris li ko li jublu bi lu mu doon lan moo jublu bi mooy ngërëmal Serigne Touba Mbacke la ñuy dàkk Serigne Touba nag dafa am loo xamante nii ngir sàkk am ngir yalwaan ngërëmam ngir yaakaar ngërëmam dafa am benn yoon boo xamante ni da ko rëdd mu gën a gaaw muy ay tànkam buñ ko ñemee wax mooy xasaayit ak alxuraan. bis bi nag li ko tax a jóg mooy jàng alxuraan ak jàng xasaayit di ko yëkkati di ko durus di ko waxtaane ba fajan jox ko sëriñ bi àddiya kon ñoo ngi ci woo képp koo xamante ne nii mbégteem sëriñ tubaa sa mbégte la képp koo xamante ne nii bu ñu yëkkatee xasida soxal yëngu ñoo ngi lay woo ci bis boobu noonu te itam di ci fàttali pas-pas bi nga xamante ni moo ko làmb muy képp ku ci jóg di ñëkk di dikk si ñoo ngi ñaan nga làmboo pas-pas bu wér ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba Mbacke képp kuy dugg ci saal bi nga ànd ak xol bu set xol bu féex yaram wu laab yëre yu laab jublu penku fas yéene li nga xamante ne nii mooy maye ngërëm muy teewlu xasida yi Serigne Touba yi ñu ngi yalwaan ci bis boobu noonu ñëpp ànd ak teewlu ak kerewlu ba. ni nga xamante ni noonu la Serigne Touba bëggee ab jotaay mel ko ñu am ci lu kawe njort barke Cheikhul Khadim noo ngi ñaan murit yëpp ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax ndax it dëkk bii nga xamante nii mooy France mooy ñi àndoon ak moom ne woon liggéey bi du taxaw moom mu xamal leen ne leen dinaa ñëwaat ci seen dëkk di waxante ak yéen kon amuñu sikki sàkka ni am nañ ak it rafet njort ni sëñ Tuubaa ñu ndaw ñu ñii lay waxal ñii ñooñu xaside yi ak murit yi ci dëkk bi ak ñu nekk ci diaspora bi yëpp kon bu ñu déplacé woo ba ñëw ci capital bi nga xamante ni ñooñu ñoo àndoon ak sëriñ bi di fi yëkkati xaside yi di ko fi dund kon war war na ci ñun war ma nag ci ñun tamit ñu gën a dëgmal xam li ñuy def lu mu doon muy gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax liggéey Serigne Touba bi ak xasidaam ak alxuraan bi kon ñoo ngi ciy fàttali murit yëpp ci wàllu teewlu gi ak xerawlu gi ba lépp loo xamante ne nii Serigne Touba bëgg ko ci ab jotaay yàlla buñ ko fi gis ci barke Cheikh Ahmadul Khadim Mbacké kon ñoo ngi yalwaanaat ñëpp mbooleem daayira yi nekk Île de France gi yëpp te ànd ko kuréel Jaalibatu Maraaxi bi di defar bis bi ak mbooleem daayira yi nekk France ñoo ngeen koy fàttali di leen ko yëgal ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla nañ ci daje ak ngërëmal borom Touba Mbacké yàlla na fi Cheikh Sidil Mokhtar yàgg lool ba naa lii mu naalal borom Tuubaa mu am ci lu kawe njortam ba naalaat yeneen naal te ànd koog taalibe Sëñ Tuubaa yëpp barke xaside yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu anta sabilu bika alwusulu liman yunilu xayra sarayi azabta uryi azabta gayri kamal tarayi kalkubarayi